Euh, janvier ak février ci wàllu làmb am na ay date am solo booy ñaan a fagaruwaat defaruwaat fan yee bàll gi am na lu ñu ma moom ma wax ko ay mbokkam génn sarax yooyee ah. signature bu njëkk ba waaye jamono jii nii nii may wax ak yéen yëf ëlbatiku na Balla gay moo tee yëf yi ah. waaw actuellement nii Balla Gaye moo tee victoire bi nii kon bu ñu bëree woon tey Balla woon tey tey tey Balla Gaye daan ko xaw ma nag après luy xew parce que làmb mbiri jënd la mais actuellement nii may wax ak yow ah. Balla Gaye yëf yi ëlbatiku na Boy Niang bi ñuy signature ba Balla Gaye di bëre ak Bombardier ba actuellement ni ñuy signature signature bu njëkk Boy Niang moo tee victoire bi mais ni may waxee yow yëf yi ëlbatiku na Balla Gaye moo tee victoire bi ciix mais tey victoire yomb il faut nga am sëriñu course moo ko mën ah. waaw sër course course dëgg moo mën a ëlbati victoire kon daal ak nekk gi mu nekk ci loxoy Balla Gaye lu wóor moo ko fay jëlewaat waaw ñaan ñaan yàlla dëgg de ñaan yàlla dëgg moo ko fay génnee waaw parce que fa mu ko denc sori na lool waaye booy Niang bu bu bu góorgóorloo tuuti. amaana dana génn ci loxo loxo Balla waaye nag yaakaaruma ko. bokkoo ci ñuy wax naan combat bu bari deret lay nekk. loolu nag jotuma ko cee gis lu ma gis rek laa wax actuellement ni Balla Gaye moo téye victoire bi. lu ma ci wan laa wax bu lambo ji jegee nag bu ma ci laajee la ma ci gis danaa ko wax lu ma ci gisul du ma ko wax. beneen bi nga xam ne dimanche bii di ñëw la mooy diggante Papa Sow ak Siteu. boobu woonuñu ma ci dara. Hmm. Hmm. boobu nag sëñ bi waroon nga ñu ko xoolal. déedéet ma ba may lii dama dama wérdu rek tëdd ñu am lu métti woon moo tax ma sañ koo wax mbër bu ma ci fayu dama lay xoolale ñoom ñu ngi ñu ngi fayeeku seen million basir toog am xaalis daal neex la ah <laughs> bi léegi duggatul lu yoonam nekkul déedéet ah, xam nga fam loo xam ne man bëgguma nekk sëriñu comédien nag man sëriñ laa kilifa laa uh-huh. waaw man kilifa laa Bachir du ma sëriñ boo xam ne dafa neex rek nga daw wàll si man ba muy métti laa toog di rampe uh-huh. di régler réew mi uh-huh. mosoo mosoo maa dégg ci ay pele ñaaw sëriñ yi nii ça fait six ans maa ci internet sant yàlla mosoo mm-hmm. ma dégg ci kecc def na ma lii nangam sama kër amul garde ku ñëw da ngay ubbi dugg maay la sama bopp maay sama safaru bopp fu ma neex laay jaar xam nga lu ma ko may ñemetee kurus client bu ma jëflante nga am satisfaction xol bu sedd ba ma fiy toog fii di wax Mimi Touré du nekk président assemblée ba ay nit jël samay wax ram rambale ko wax loola booba ñi ko ñemee wax bariwul de. kon diggante Papa Sow ak Siteu daal gisagoo ci dara. gisaguma ci dara xool it. fas yéene ma koo dañ leen a fay seen xaalis. waaw ñu ngemm ñoom ñaar ñëpp dem. ki la meer ki gañ. waaw képp kenn ku ci ku ci mérito victoire bi yàlla na ko yàlla jox. beneen a ngi ñëw diggante Gris Bordeaux ak Ama Baldé. boobu it xoolaguma ko gisaguma ko. benn combat laa gisagum actuellement Balla booy ñaa Niang barki démb lañ ma wan Balla Gaye tee victoire bi nii ca nam ko teeg ca anam ya ak sarax yam taxaw tee victoire bi nii xam naa sarax ya. Hmm? wallahi barke Cheikh Tidiane du ma waxantu te sarax yooyu rek moo mën a tax victoire bi rëcc ko waaw sarax yooyu bu ko Boy Niang defee di victoire bi rëcc Balla Gaye bu ko Balla Gaye defee di victoire bi du ko rëcc ku ko njëkk def ci ñoom daal fi mu ne nii yaa moom victoire kon message baa ngoog lancé na ko mhm.